yow yàgg nonu waaye adduna ngi ni demal maa ngi ñëw la. grand vraiment sax war naa seetlu tey. waaw Seck daanaan kontaan lañ trop vraiment waa Saal production amuñu seen fay li ñu defal rëy na parce que ñi ko mënoon def bàyyi na mais comme ñoom dañoo gis vraiment liggéey bi ñu def si mel na Fall. ah sama sama na toog Abdou Diouf ak sañu suñu grand frère Pascal vraiment ñoom amuñu sen fay ndax li lepp buñ ko fësalul woon du mën am kon vraiment amuñu sen fay yalla yalla fay donc tay bu ñëwee fi bis bi jeunesse bi xawlé té wax ñu jeunesse bi tamit ah defu ñu war parce que jeunesse bi mo yor réew mi ëllëg kon jeunesse bi dañoo wara a xam ni ñoom ñooy ñoo yor réew mi kon ñu dañoo wara a bay seen waasi réew mi nan lañu bay bàyyi seen waar moo ñu xam ni réew mi yàgg-yàgg seen loxo lay mujj kon li war mooy lu mel ni waa Sall production yi def ñoom tamit am nañ ci waar mooy wax ji dafa bari te ñoom ñoo yor wala wala tax fi te Abdou Diouf taxaw tey ëllëg ñoo fa war a taxaw fi Ablaye euh, euh, Mbaye Mbaye mi taxaw ëllëg ñoo fa taxaw kon ñoom seen bopp war nañoo déglu bu baax a baax xam ñeen li wax lu baax xam ñeen li wax lu bon. jërëjëf El Hadj Moustapha Ndiaye final catégorie poids sama gi nii ci diggante laay gaynde El Hadj gaynde ak Mame Sarr ak Mame Sarr numéro 2. arbitre bi sifflé na final point laissé Mame Sow moo takk bandeau bu weex bi ci bopp bi alaaji gande gembo gembo ngeen ñu wonu ginaaw oh ñoo nga ca biir ña ngay leew too li ñuy bëre dafa am solo nak lañ leen tegal ku daan am nak ku daan dakh nak yu jiital ay waay mo tax ma pota ñu ni wa xama ni lool du mëna yom sek sekk fi lañu defaro wa defaroo la sek daanaan fi lañu jaar am million man neena daan ma mbapat mo gën daan maa ren saan ay ñom ñaar maam sa la alaaji gande ña nga ca alaaji gande gembo gembo ngeen ñu ñuy suñu loxo chamagne ñor xomb ci bëri alaaji gaynde macha allah maam saa ñor xomb moom it. maam saa xam nga li mu fooyee combat am daa bëri moom itam day fooyee combat am. takk te alaaji gaynde loo ko mën bëgg. ah non bu fooyee combat am nag bu fooyee combat am du du du jiital nag seeg naa leen. ah ñoom ñaar. lu war a koy daan mais maam saa xale bu a bëree la seeg naa naan la maam saa bu mën a bëree moom tamit. ñoom ñaar. te Seck gis naa ko mu mu tar bi loo xam ne moo danta su ci saxee yàgg-yàgg ma naa mën naa ëlbatiku ci kawam. naa bu sooyee naa bu bilaay. waaw tàng ndox may ki antenne. Ah. mel ni bëkk nag mel ni bëkk nag bu sottee rek nga dégg daal loolu loolu mbër mu ko jàppoo. mbër day am kilifa waay Seck ndaa nan. Alaaji Moustapha Ndiaye. Ah. Pape Doumbia jaajëfal naa ko moog Gueye Teranga. dëgg la Seck ndaanaan ñun tamit ñu ngi koy jaajëfal. waaye les fatigables mooy Malick Laye. Malick Laye caméraman bu mag caméraman bu mag bi. dañoo dem stade ba ñaa subaare jóge fa jubal si si mbappan ma Seck damaa sonn. ndeysaan jërëjëf Malick. na. dëgg la Seck ndaanaan. ñëwul ma carte yi fees na. mais loolu noonu la ay ndaw boo leen dañoo war a joxe ba mu jeex ñoom tamit. moo tax fanaan nañ ci lamb Ndoye waaw dëgg la Seck ndaanaan mais noonu lañ ko soxlaa dañoo bëgg rek lépp lu fi tukkee ñu saare ko àdduna yëpp teg ci seen bët Omar di ko Seck waaw fekk si biir I nga jóge to nga taxul wa waaw keneen subaan xool laay Awar di ko gis nga ab sifflé na génn seen diggante. ñu ngi leewtoo. Alaaji Gaynde Maam Saa numéro 2. ñu ngi leewtoo Seck ñii li leen war a dese ci minute wala tu la bari. bu deful ndànk la nga waxoon dina de. a ah, baax na man daal li ma gis neexuma. ñu ngi wuree nag fi mu. waaw Ndongo Matar. Hmm. ak ak kii. Maga Sarr ay waay kat la mu. Fallou mu Ndongo Lo. wuree nag fi ne. oh tugu ko tànn xale bu durut xale bu durut xale def nga ko. Seck waaw waaw dëgg la sant yàlla rek. dégg nga nag wi sant yàlla rek. tey vraiment yëg-yëg bu rëy ban yëg-yëg nga am ñu romb say nawle waaye jël drapeau bu toll nii boole koog say xarit ak mouvement bu rëy bi tuddee ko ba yëg-yëg nga ci am. xanaa kontaan rek am kontaan lool sama xol dafa sedd. ndax li tax sama xol sedd ma la mooy lan nga dëkk ci koñ bi ñu jël lu mel nii tànn la ci doomu koñ bi tuddee la ko dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax di ko ci sant di ko ci gërëm di gërëm nag waa mbooloo mouvement jóg jot na ndax man li may wax rek mënu ma dem man dong kon lu ma mën a am ak lu ma mën a def rek samay xarit ak samay soppe ak samay àndandoo ñoo ma ci jàppale bu loolu amee nag muy sama waa délégation bii ndax ginnaaw yàlla suñ mënee taxawul mouvement jog jot na di ci liggéey di ci dox ñii ñoo ko waral ñoo ngi ciy def ay jéego yu am solo di ci liggéey lu am solo kontaan ci ñoom lool di ñaan yàlla lépp loo xam ni euh, lépp loo xam ne am nañ ci mbébét ñaan yàlla yàlla moo ko. mbokk yi arbitre sifflé na ci diggante Laye Gothé numéro 2 ak Bébé Balla Alhaji Moustapha Ndiaye sama baat bi dee na Seck noonu la Laye Gossé numéro 2 ak Bébé Balla Boy Sam Mbooloo ñoo ngi lewtoo a Bébé Balla war ginnaaw naawoon na ko danaa daw signature waaye géew ba doo daw. Laye Gothé numéro 2 moo ñu wan kanam. waaw waaw ñu ngi lay too. Laye Gothé ñu wan ginnaaw. ñu ngi lay too laay eh, jël tànk ba. Eh, moo bëre la wala bëre door. Eh, bëri léegi dana jaawale bëre door ak bëre simple. bëre ko. Laye Gothé bal na ko. teru ko. Laye Gothé bal na ko. faxal ko. muus na. muus ñëw na ci lamb ji. muus ñëw na ci lamb ji. muus ñëw na. muus ñëw na ci lamb ji muus ñëw na ci lamb ji laaj boo eh, oh, jaaxle na jaaxle jaaxle na aywa jaaxle na ñii ni ñu bëri nii jaaxle na balla ngemb ngemb lu xonk li laaj goote numéro deux ñoom ñaar ñi ngi lew too baab dumbiya kenn du Pape Doumbia kenn du moom. Pape Doumbia kooku man jaaxal na ma. Pape Doumbia kenn du moom. yàlla mi ko bind dong la jaaxalul. Pape Doumbia kenn du moom. jaaxal na baayam jaaxal na yaayam. ñun suñu ne suñu baat yi daa dee. ci jëf ju rafet ak ak tubu noobul. ndeysaan jërëjëf Pape Doumbia. Malick sama cameraman. ñoom ñaar ñoom ñaar. Bébé Balo. bebe Balo. bebe Balo. Bébé Balla Laye Gothé numéro 2. Bébé Balla féete sun sunu càmmoñ fi toll nii ak ñoom lu xonk lu. Laye Gothé numéro 2 féete suñu ndeyjoor. ñoom ñaar. ñoom ñaar ñu ngi lewtoo. maa ngi jaajëfal béere rouge la groupement mobile d'intervention. dëgg la Seck naa naan. ay jàmbaar lañu. ñooñu ñoo tax liggéey bi ñoom. ay jàmbaar lañu. ñooñu ñoo tax liggéey bi rafet. ay waay Sall production moom. waaw Babacar Sall kenn du moom. ah Laye Gothé jël ci lu na wax ko mu bañ. Bébé Balla dëggal kii dëggal coach bi. coach ba dëggal coach bi. Maguette Dioum la. dëggal coach bi. Maguette Dioum la. dëggal coach bi. Maguette Dioum la ndaanaan la. dëggal coach bi. Maguette Dioum la ndaanaan la. Asoufaal way nan ko ma ngay maa ji. ndeysaan. way nan Asoufaal ma ngay maa ji. Asoufaal ah, a ngoog. grande dame. ndeysaan moog moog moog moog Awa Seck. wujju yooyu ñoo bokk ndey ak baay. ndeysaan dëgg la Seck ndaanaan. <coughs> xale. xale yaa ngi bëree Laye Gothie numéro 2. Laye Gothie numéro 2 Bébé Balla. Bébé Balla. Bébé Balla instant mbooloo. Laye Gothie numéro 2 Thiès mbooloo. Laye Gothie kor na ko. Faxat ma ngi koy manuel. Bébé ko. Bébé ñoom ñaar. Bébé Balla bañ na. ndeysaan. Bébé Balla bañ alaaji Moustapha lamb doy na war lamb dafa métti sekk ndaanaan xeexub teraanga la lamb dafa métti sekk ndaanaan arbitre atte na leen atte na leen xale yi ay eh, dañoo sonn ah. mais sama cameraman Malick jaajëfal naa la ci liggéey bu rëy bi Pape Doumbia kenn du moom dëgg la sekk ndaanaan Mbaye Sarr arbitre sifflé waat na génn seen diggante. waaye Gothé numéro 2 Bébé Balla. Bébé Balla wan ñu ginnaaw takk ko li nga xam mooy ngeen lu xonk li. Ndiaye Gothé numéro 2 wan ñu kanam ngeen boo ngeen bu vax. Ah, eh, mais laay Gothé dañu ko dañu ko wala mukk naa sulli sa wax wi. a xool loolu. parce que trois fois ngi mu ko ko. ko ci moo ko tey kon. waaw waaye ba mu loolu xel nag. ñetti yoon a ngi mu koy wut réussir ko. kon bu deful ndànk ca la ñu mujj. non na ci bàyyi xel su ci xel mu fa la ñu mujj. Alaaji Moustapha lamba ngi nii. ndeysaan xoolal lamb ji ni mu taaroo. dëgg ki ni way Baara Mbaw. xoolal li muy guddi guddi gaa yaa ngi toog. lamb daal nii la sekk ndaanaan dëgg ñu way Baara Mbow waa Baara Mbow kooku suñu suñu xarit la sekk ndaanaan xool ba la biir kooku suñu xarit la Baara Mbow waaye lamb neex na Alaaji Moustapha lamb neex na waaye neex a sekk a nga looloo waral ñun duñu sonn duñ tàyyi xool suñu baat yi mënuñu dara waaye faaw ñu wax parce que lamb moo moo ni mel sekk ndaanaan duñu sonn duñ tàyyi soo ci nekkee sa xol bébé balo lay goota ramas na ko ñoo ngi sa saako ya Eh, ñoom ñaar daa ñoo tolloo doole. ñoo tolloo doole. ñoo tolloo doole waaye teelu ko jàpp ko daan ko. ndeysaan nee na ko mënut a bëri teelu ko jàpp ko daan ko coach ba wax. waaw coach ba loolu Maguette Jumlé. ndeysaan arbitre sifflé waat na dem ñoor dem ndax laay eh, goote Bébé Balo mais c'est que Bébé Balo faaw mu sàmm na tey na tey rek non faaw mu sàmm tànk yi mais laay goote lim ko def na lim xam ah. Balo lu mu def Bébé Balo dindi ko lu production gàcce ngalama Baara Mbow xoolal Baara Mbow ah, Baara Mbow oh, Baara Mbow yaa bëri jom géwél yi Mbese Alaaji Moustapha. Seck naa la ñëpp ko woy. dégg la kooku kooku borom baax la. ma ngay may ji ma ngay may ji de. président Abdou Diouf. ma ngay may ji. président ànd ak ak naar fa géwél. ah ma ngay may ji de. eh dem na. Bébé Baal tur nañ fa xam na ko mu rëb. cata pluie. ma ngi koy bay. Bébé Baal war na eh, lu xaw lu xaw. lu xew teel ma lu xew. teel ma lu xew. dama xool lu xew. lu xew. génn leen géew bi. génn leen bi. génn leen géew bi. génn bi. lu xaw oh, joxoon laay gosa jël bi oh. maa ko man maa ko ëpp doole maa ko dàq bëri xam nga rek ni mu demee la wër na maam Sara Fall mais la wër na ma nga tëgg ko mbokk dama kaa dàq bëri barke alquran dama kaa dàq bëri ëpp ko doole fuuf daa ah, man daam wër na yàlla ko su lu xaw ñii dañoo bon waruñoo ñëw fii ñuy favoriser booy booy bi door ëppalom ñu naan daanu la arbitre bi tiim ko su defee trois appuis dañoo war a joxe verdict waaye waxuma la dara mu door ëppalom waaye yii dafa ñaaw ay favoriser mën ta tax mbër doon champion mbër kenn du ko favoriser dañ koy bàyyi mu jàngi bëre ba génn waaye lii ñu koy defal nii taxul mu dem fenn lii dafa ñaaw mbër war te ñëw jóge fi mu jóge ñëw door ëppalom ñu wut ku ñuy favoriser lii dafa ñaaw ñoom ñëpp ay xale lañ dañuy jàng bëre man na faal yëpp ñu leen di ànd bi mën nañu raw kaa jot defee bàkki Seydina Mohamed daan naa ko ma kaa bëti wër ko ndomba gëpp ko mu def kalaat mu doon di ma mboot ma dawal dóor épaule ba épaule ba jaaxaan may doog a ñëw ci mun maa dóor mboot ma xaw a ma mot. lancer sa lancer sa message. barki Serigne Salim loolu man góoma loolu affaire la ñun lamb lañ ñëw dañoo xam ne suñu mbokk ñëw mais Sénégal complexe lañ boobu na ñëw na tekk nañ ko ko fekk si naa ko këram. fekk si naa ko këram. waaw kay ma am na ñoom moom.